nit ñi dafa am lu ñuy tudde al awaam wala amatu naas maanaam nit nit yi nit yi nit nit nit ñi nii rek nga xam ne maanaam mooy mbooloo mu bari mi daal daa am lu ñu bëgg tele yi moom dañuy jaay seen seen seen seen image lañ koy ma seen produit daal moom daal dañuy dañuy ñoom dañuy jaay rek ñoom seen marketing waaw léegi nag liñ soxla kuñ jortu ne maanaam mën nañ koo amee ci yow jamono bu nekk mën nga leen a jaral lu ne moo xam nag yow nga xam ko ba yow it jariñoo leen wala nga ñàkk ko xam ba doo leen jariñoo loolu yi ñuy def ak coow yooyu di am daanaka dañuy ruuxale këri diine yi ak di leen jaxase nit ñi it danga dul xam luy seen problème ak lan lañ bëgg danaa ci joxe misaal moo xam ne misaal mu jege lay doon xam nga sëñ Ablaye Diop Bichri gis naa ñu dalal ko Sen TV loolu buñ koy waaj a dalal nii dangay gis ci réseaux sociaux yi ñëpp dañ koy yëgle di wax ne nañ ko waajal suñ ko dalalee it ba xëy mooy nekk ordre du jour ñëpp moom lañuy ñuy waxtaane loolu defaluñ ko suñu Abdoulaye Diop Bichri ñoom télé ba mu doon waxtaan lañ ko defal pourtant moom mi ngi liggéey Touba TV ki nga xam ne murid yee ko moom bis bu set mu di fa waxtaan lu tee bu waree dem defi waxtaan ñu joxe ko noonu ampleur bu mel noonu bu fa jógee ñu joxaat kooko noonu bu ko defee mu amal njariñ télé boobee duñ ko def léegi lu seen problème moom mi ngi liggéey ci télé boo xam ne murid yee ko moom te mooy waxtaan fee ci sëñ moom lay waxtaan fii ci sëñ waaye fii duñ ko jox boobu gëdd fële dañ ko koy joxe waaw léegi lan mooy problème bi kon Touba Lamp Fall FM tey bu ñu ñëwoon Lamp FM lay dem duñ ko jox boobu importance bu ñu ñëwoon Almouridiyyah lay dem duñ ko jox boobu importance kon problème bi dëgg-dëgg nekkul ci maanaam li muy waxtaane wala moom ci jëmmam waaye nit ñi dafa am maanaam mënoo xam daal lan mooy seen problème dëgg-dëgg su ko defee nag ñoom ñi nga xam ne ñooy dalal sëñ Ablaye Diop Bichri mu waxtaan ci ab sëriñam waxtaane nam ko gëme wax ci ak ñam ko bokkal. waxee ñoom it ñoom nañ ko bëggee faw ki nga xam ne kooka du ab sëriñam du ñàkk mu dégg ci loo xam ne jàpp nañ ne rek ko yeyoo moom it bu ëllëgee ñu dalal ko mu ñëw bëgg a tontonte kii loolu nag ñi xamul buñ ko dee dégg mu daal di bëgg jur ab conflit seen diggante bëgg a jur maanaam xeetu boddi konteeku xulooku xeex boo xam ne dara waralu ko lu dul ñee maanaam borom télé yee nga xam ne ñooy dalalaate ñoom ñoo jubloo féewale nit ñi rek li ëpp ci ñoom daal ay seytaane rek lañu. ay seytaane lañ yoo xam ne sayatinul ins mooy ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li ñu war a wattandiku mooy lépp luy féewale xeet wi ak askan wi ginnaaw daal tele yi moom ñi ngi fi murid yi am nañ ay tele luñ bëgg ci borom Touba tele yi murid yi moom nañ dalal koo xam ne kii mën na caa wax lu sedd xol yi yëpp lañ bëgg a dégg lépp ñu dégg ko te ku koy tontu du fa ñëwaat waaye ñoom forme bi ñu koy defee nag ñoom ñoo jubloo woo nit woo ko ko tontu waaye ñoom ñoo jubloo loolu nag lu yàq la waaye du luy defar bi mu tàmbalee ba léegi waaw bi mu tàmbalee maanaam xam naa war naa man ñetti at ñeent dañ ko tàmbalee def ci koor geek léegi boo gisee ci la féewaloo gi ak xuloo beeg ŋàññante beeg waxante gi lu ñaw ci diggante tarixa yi ci la gën a tàmbalee bari